asalaamaaleykum mbokku damay dugg fu nekk di leen daal di li nga xamante ni moom lañ bëgg ma leen koy daal tegal si table tey nag ñu nga xamante mooy diwaanu Caaroy man daal di fi fekk ay jeune ak ñoo xamante ni la samay toos lañ ah samay mag lañ samay lépp lañ sincèrement ma daal nag balaa may xuus dama leen daal jox micro bi ñu nuyoo rek ku ci nekk balaa ñu gën a kii si émission bi ku baax naka nga def. fi ba si jàmm. sant hmm. Hmm. ma bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. waaw ngi nuyu ñëpp di ziar gars yi di jégalu waat di ziar waaw ba si kanam incha allah. Hmm. ma bàyyi la nga nuyoog mbokk internet TMP. waaw yéen ñee yéen NP ñu ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu tamit wa sant yalla sun grand nek fi ak sun ndijaay ak sun moroy mi tamit di nuyu yéen ñep di leen ñaanal jàmm tamit yàlla na fi yalla fi jàmm yaag <laughs> mo joxat keneen mu daal di waat wa naka nga def sant wér alhamdullilah wa ngi ngi si jàmm wér alhamdulilah tey nag waa TMP ñoo ñëw leen ñu bay leen ngeen nuyu rek ah ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di nuyu auditeurs yeeg auditrice yi nek ci wa tempe yi xam nga di leen dalal ci caaroy gaar xam nga tay ñew nga ciaro ñew nga ciaro yaangi bir ciaro dal lool dal la am ci lu may wax buñ démé ba ci bir inshallah ñu gëna gëna yaatal wa ma jox sama tons kaddu gi mom tam mu daal di nuyon ndax mom tamit neena la lepp mom la assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu wa mt di bëggé ñuma bokk jotaay bi yépp di ñaanal ñëpp jamm ta xamna jotaay bi jotaay bu la ñi fi tok ñëpp ño am maana boy wër jotay ba am maanaam bo ñëwee fi dang ko fi fekk parce que dañ fi fekk ay mbeur fekk fay artiste fekk fi ño xamante dal dañuy jàppale sen gox lool rek mo ñu yëkëti te te li ko commencé ni yàlla nañ ko continuer yàlla nañ ko continuer noonu si jàmm. danaka kaddu gu rafet na rek ma daal di bàyyi ki nga xamanteni moy Mika mom tamit mu daal di nuyoo rek ak mbokku mbokkute internetu TMP yi Mika. assalamu alaykum di nuyu TMP di nuyu ñu nek ci jotay bi di nuyu comme ni ko sama grand bi waxee tey espoir moo fi nekk ñi nga xam ñoo nekk ci làmb bi ñi nekk ci euh, showbiz bi xam nga ñi nekk ci sport bi je pense que ñoo ñu ko dajee ñu ngi leen di dalal bu baax yéen a ngi caaray sant yàlla waaw ñu bëgg ñëpp ak ñuy yi waaw ma bàyyi nga jàllale micro bi jox ko <laughs> wax ne fii sant yàlla caal te mburu mi di xoyom xoyom tey rek lay neex. Mm. waaw tey rek lay neex. Mm. <laughs> mi kaa teel micro bi. acca daanaka noonu ngeen ko gisee rek daanaka ñoom ñëpp nuyoo nañ ba pare rek nee la damay daal euh, xuus si li nga xamante nii mooy émission bi euh, émission bi nag nee leen nii lay demee saa su nekk du ngeen ci wéet benn yoon teraanga yëpp ngi ci émission bi café bi day ñëw ataay bi day ñëw ndox mu sedd bi day ñëw lépp day ñëw lépp fii lay xewee fii caaro yi fii lépp fii daal lay xewee ba tax na rek ñi fi nekk si jeunes yi nga xamante ne façon ñu ko fay dund pourquoi pas artiste bu nekk fii yow nga war ko jàppale jàppale woo ko ngay dem feneen di jàppale keneen moo xam mbër mi moo xam ak ku mu munti doon ñoom nag tey nee nañ ci loolu lañ bëgg ñu waxtaan ci ñu xusu ci bu baax a baax ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ci kanam lay génn ma bàyyi jox gars yi kàddu gi ñu daal ci débat daal ci wéy la ba ci kanam ambiance waaw tons est duma la bàyyi kàddu gi yow Mika. <laughs> mën naa nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di bëggee bu wér mu nuyuwaat rek dafa dès le début dañuy yàgg di bëgg di jàppale suñu gox parce que fii ku fi jàppalewul sa gox rek di nga gis ñoo xam ñi ngi jàppale seeni gox caaro yi si boppam euh, li ñu li ñu war a def mooy jàppale seen i àndandoo parce que amuñu kurul suñuy àndandoo mais tamit ñoom tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy wootee bëgg dem bëgg a def dara ñoom ñoo war a xam ne seen seen ànd nit ñi mooy seen mooy seen doole. ànd ak nit ñi mooy seen doole parce que boo àndul ak nit xam nga foo demit mooy loolu kon ñoom muy mbër mi muy artiste bi muy opinion publique bi ak opinion ak leader opinion bi ñoom ñëpp li leen war rek mooy ci gox ba ñu nekk du sa banlieue mooy tax moom may wax mais ak feneen ak feneen fu nit war a nekk rek war ngay mën a fexe di jël sa population xam nga di ko boole say programme te bañ a oyof bañ diis nag xam nga oyofal affaire yi di fekk si nit ñi sur le terrain. loolu daal lay rappelé euh, ñi nga xamante ñoo ñoo nekk ci milieu sport bi ak milieu artiste bi te xam ne loolu rek moo lay may li nga bëgg leneen mënu ko may lu loolu ma jox gars yi ñëw. waaw daanaka kàddu rafet na la ma bàyyi Mika moom tamit mu wéyal Mika wéyalal. waaw la plupart gëmuñ suñu bopp waaw ñun pour ñu pour ñu firi sax pour ñu dem dugg town wala ñu dem duggu seneen wala ñu dem jàppale keneen ñu ñu def escalier chaque instant ñun échelle lañ daal ci ñoom ku bëgg dara da ñëw si ñun ñun ñu jàppale la xam nga mhm. yow boo demee ba nekk quelqu'un yow ñun ñu la dégg dootuñu la gis te ñun tey bu ñu métti ñun ñooy nekk di xeex ak yow di jóg di daanu yow bu demee ba neex rek. mais mais dinaa la dinaa la dog tuuti lan moo tax nga ne am ñoo xam gëmuñu seen bopp fan nga teg loolu ci ñàkk gëm seen bopp la wala lan la. dafa bari ñun ñun ñoo gëmul suñu bopp. Mhm. parce que ñun tey bu fekkee dañ ci romb suñuy doom. Mhm. ñoo xamante ni tey quelque soit muy fekkee ci bi la. Mhm. wala muy ci bëri bi wala muy ci ci euh, musique bi. wala muy ci sport bi. ñun ñu romb leen fii dem di gëm ñeneen. ñun la à qui mm. loo ci wax. non Mika man li nga wax nunguma quoi ñooñu bu jàng jotee dañuy dem jàngi ñun fii koo fi jàngloo mu bañ nekk ci camp nekk syndicat diggante boobu lay baagante kon dèjà ñoom ñoo ñuy jiite force ndax ñoom ñoo nu ñoo nungoo jàng ëllëg ñooy liggéey lool la rek ba paré ben côté bi ngi wax fi dañuy ñëw politique suba ñu jox la vaccin nga top leen mag nak lu mu nungu ñu teg ko ko mika dagal na ñoo nungu loolu. wa ñu ñu nangu nañ loolu. mais ñun dañ lay changer. ñu ñoo ko war changer. ñoo wara changer loolu. waaw salam salaam. ñoo ko war changer. wa donc mika. wa fofu nonu xam nga daf may euh, damay condamner ñëpp quoi mbeur amna lu mu wax lu am solo parce que mbir mi mi ngi déparer ci ñun parce que ñun ragal lay ñëk wax ni moñu japp ñun amuñu fit maanaam damay de damay dégg des fois ñuy wax ni booy banlieusards yi dañoo am fit mais ñun dañoo dañoo ragal parce que ñun lu sotti la ñuy jàpp ñun du ñu fekk lu nekk ci suuf ñu fekk ci suuf jëlee ko ci suuf di ko yëkkati di ko yëkkati di ko valoriser valoriser ko ba ñëpp gis ko noonoo ñun gëmuñu loolu ñun balaa ñoo jàppale mbër mi foogu ñëpp di ko dégg ñu doo koo jàppale pour lan te ñi koy jàppale amaana ñooñu gënuñu ñu te gënuñu see yey man foofu laay waxee mbër gis nga ñi ci kaw ñi ci kaw ñoo ñuy rey parce que yu bëri xew na fi si banlieue bi fii nii Mika am na ñu ciy dox am na keneen ak keneen lu mu ciy dox maanaam suñu doom yi banlieue bi euh, foo boo demee Dakar ville doo fa gis ay marché yu bëri ay syndicat ak ay consort yooyu noonu doo ko fa gis xam nga lan nga fay gis jàngukaay wuti xam-xam école de formation kese nga fay gis ñun fii foo ko fi gis. foo ko fi dégg. amul fii Moussa li ma la wax daa leer mag lu mu nangu ñu ko dagal. waaw donc ba ñu ne arène nationale ñëpp a bañ. ñoo andi ko fii. waaw bi ñu nee bi marché caare la ñu xàll. andi ko fii. waaw ñoo ko nangul suñu bopp ñoo ko njëkk a suñu yaay bu ñu jógee 2000 ak vax la ñu xaar pour dem stade. <laughs> waaye Moussa yow mais lépp ñu dara ñoo nangu. micro bi sama micro la bi mooy seen micro. mais <laughs> euh, dafa war a am ci dëkk. Mm. stade dafa war a am ci dëkk. xam nga mooy problème bi. Mm-hmm. mooy ñun suñu bopp ñoo war a nit bu jógee di organiser benn affaire ñu koy saboté war ko dooleel te duñ ko dooleel yaa ngi dégg ñun ñoo war a bàyyi loolu tant que bàyyiwuñu loolu duñu dem comprendre ngeen lu baax li may wax affaire bi loolu kese la ba pare te li ngay li li sa euh, dëkkandoo do organiser nga ko koy xeebal yow benn waay day nekk fële ailleurs ngay dem di ko di ko defal loolu ruus nga kan defal sa waa koñ c'est loolu la ñu war dindi ruus nga defal dara sa waa koñ dem di ko defal ñeneen ma loolu moom mooy métti ma loolu moom mooy feebar ma. loolu est-ce que la tamit. est-ce que la. non mooy li rax moo di loolu mi nga wax sànq. loolu mhm. parce que xam sa bopp da ngay sa bopp yow mu yow parce que ki nga dem jàppale ji ku feneen li mu am moom nga am mais est ce que tamit keneen ku ñuy jàppale li muy nangu est que ki nekk fii dina ko nangu. Hmm. dara lu dul France la xaas tax xaas day jeex. Mhm. ñu nga war a gëm suñu bopp dafa suñu gox bi. Mhm. day jeex waaye njariñ la effectivement dama lay wax dama lay wax la xam nga mooy la. Mhm. ñun ñu fekk benn structure boo xamante ni. tey lendemain Korité wala lendemain Tabaski wala ay 8 mars wala ay yooyu. suñu yaay dañ doon dem ay esaat. ay Léopold Sédar Senghor ay dem ay grand théâtre ak yooyu ñu leen fay exploité ñu dem ba ci ñu koy dem suba ba ngoon duñ dugg ci bunt yi la ñuy toog mhm. ñun ñu def fi boo xam dañoo gis ni ñun suñu yaay yi ak suñu papa ak suñu jigéen ñi mhm. ñu leen doon naxee di leen yóbbu ay grand leen koy créer fii ci banlieue bi dem seetu artistes yi nga xam ci banlieue bi lañ nekk jël leen ñu koy def mais loolu mais mais xeex foofu lay commencé su fekkee yow nanguwoo toujours yaa ngi dem di topp ñooñu naan naa dem grand théâtre naa dem stade mais bu yàggee yow lii ñuy wax kañ lay dem bis topp mooy da ngay gis fii ñoo xamante nii dañuy bàyyi suñu club suñu club bi dèjà mi ngi fii ko lañ koy bàyyi dem di supporter ay ñaari tali dem di supporter ay jaraaf dem di pour loolu du complexe mhm. buñ waxante dëgg mhm. jottali micro bi jottali micro bi caaro dañoo gëm seen bopp lii ñuy wax laay dëgg sax fii nii ñëpp am ñun suñu ñu ne xoolal paay ñàkk bàyyi dem mhm. a liggéey di jàng di kii ay kii ñu marché ñu dañu ko suñu bopp mhm. waaye am na koo xam ne ñu toog bu xam ne aaro war a liggéey ñu daa war a liggéey toog si baax daal ñoo soxal ngay wax sa dee loo ci wax non seen bopp seen bopp benn bopp yëpp mooy xaalis ndax bu ngeen ko defee da ngeen koy tudd ay nit defar ay soutien defar lépp yéen a ngi liggéeyal caare mais seen bopp yéen it de yéen gisuma dara lu ngeen fi tabax laa gisagul quoi bëgg naa ngeen wax ma lu ngeen tabax yéen lu ngeen def ak ku ngeen jàpp la kan ngeen jëndal ordonnance ma xam léegi nan leen koy dégloo a neex a wax yu am solo mhm. yoo xam ne yu concret la yoo xam ne tey yii nii dañ ko war a gis mhm. mooy arrêté mi ngi koy wax léegi léegi mooy mooy mooy mooy l'Islande ñi ngi ñi ngi taxawal yu mel noonu. Mhm. mais malheureusement malheureusement moom dafa wax lu am solo. Mhm. gis nga gars yi ci ci base bi la ñuy suñuy tànk. maanaam ñi nga yëkkatil micro bi yëkkatil micro bi maanaam ñi nga gën a mhm. a damm say tànk quoi. ñooy gën a damm say tànk. dama toog ak benn maire man ak Mika dañu dem seeti ci benn association bu nekk fële ne la ñu toog ak maire bi di waxtaan ak moom ne ko nii 8 mars bii nii doo leen génn da caaro yi mu ne ah ñu ne ko di dem tàcc ay yaayu yi ngeen di dem di tàcc yi ren doo leen tàccu yaayu kenn yenee toog fii nii ñun seen i doom ñu tàccul leen est-ce que comprendre nga mm-hmm. mu ne ma nii Moussa li nga wax dëgg la de daaw 8 mars bii passé dañ maa jël dugal ma ci oto yóbbu ma stade amitié Léopold Sédar Senghor mm-hmm. maire maire maire yi nga xam ne lañu waroon a tàcc yëpp ñoom ñu toog ci kaw tribune bi ñoom ñu teg leen ci buntu stade bi naaj bi ñu yendu fa yendu fa ba ngoon ñu yabaat leen yóbbu indiwaat leen ñu ñu di si fii mm-hmm. monte ñooñu seen i doom est-ce que ñoom dañ no gën dañ ñoo no a bëgg lu baax ñoo bëgg lu baax mais nag conviction la ak a valoriser doomu aadama gis nga nit mën ngaa fekk mbër mii nii nga valoriser ko valoriser ko ba jaay ko valoriser ko valoriser ko ba jaay ko d'accord d'accord d'accord waaw loo ciy wax yow tamit. si waaw um, ah, man moom fi may waxee moom mooy comme tey jii nii ñun li am quoi tey jii am ñu am nañ mbër am nañ ay joueurs yoo xam tey jii nii baax nañ trop euh, am nañ ay woykat tamit pour pourquoi tey jii nii ñun suñu woykat yi ñu am tey ah, wala suñu mbër yi suñu xewlee dara ñun ñëpp ñu booloo bu kenn kii moo maaka mag bu kenn xeeb waxu kenn ñun ñëpp àndandoo. Eh, jappale koku non to ngum tay ji ma tiaka mi ni mais yoon la ma tiaka mi ni mo nek ci koñ bi artiste bi way chaque vendredi ñun ñep mëna no bolo bu dé chaque day teug chaque chaque vendredi def entre 2000 ñun ñep ñu paré ko chaque chaque vendredi ñu and ak mom fekk ten ba mu teug ñu ñibi ci mbeur bu amé combat ñu lancer wala ko fofu non wa gox bi yep dajé fa ñu xam ñun li lan am après leen ñu tékkat ci kanam tamit tékko ci ah wa salam ba <laughs> man non limay wax rek ha ah, comme lim mor wax quoi koñ bi am nay mbeur am na ay joueur am na ay seen artiste comme ay ñoom ma caaka yee xam nga dañ war a jàppale fi lañ dëkk comprendre nga bu baax fi lañ juddoo fi mooy suñu mbër comprendre nga bu baax di champion bu mag kon ñun dañoo war a gëm ñu bopp comme li gars yi wax rek ñu jàppale mbër yi comprendre nga baax Mor mi payeur la di ñaw lu rafet barke eh, maam Seer Fall di kere lu rafet isa xam lax ba ñun dañoo war a sol di ko tiitaroo xam ne maanaam suñu doomu gox moo ko keree comprendre gars yi tamit gën a xam nga ñu gën a jàppalante boole suñu bopp xam nga mooy loolu xàccandoo dóorandoo quoi parce que mbooloo mooy doole te benn instant bi xam nga gaa yi comme li sa gars yi wax léegi rek dañuy bàyyi ba mu jóg ñu soog a ñëw te fii lañ war a ñëwee nag fi mu nii lañ war a ñëwee comprendre baax suudewu jàppoo xam nga mooy loolu quoi waaw ba si kanam. Mm-hmm. aada dafa ne maanaam début bi gars yi dañuy damm say tànk. Mhm. mais c' est très normal parce que début moo métti. moo métti parce que lépp loo gis si àddina. Mhm. commencement day métti. dëgg la métti doo mën a egg yow jusqu'au dëgg la lu mhm, wér foofu nga ànd seeg say maanaam ngay jógoo ko daal di ànd ak tamit say say say ennemis mhm. loolu tax yow nga mën a egg yaa mhm. bon damay ñëwaat ci côté question kii euh, Moussa maanaam affaire de euh, Dakar waa ak banlieue sa man buuma loolu man rëbës laa yar suñu kër ma peut-être laa juddoo je suis fier de banlieue sa laa juddoo maa geemoon maa ngi yaroo Rebeuss mais ñoom dañoo yokk tey jii Dakar waaye am na ñoo xam ne bu ñu sañoon tey seen doom nekk banlieue mhm. parce que c'est éducation ñoo leen gën a baax éducation ñoo leen ñoo leen ñoo leen gën a am yar gën leen a am teggin gën a xam nan la ni comment on fait pour pour pour pour nan ngay réussir réussir euh, réussir euh, sa vie mhm. ak ak li nga bëgg a def loolu mhm. banlieue sax moo di ko gën a am Dakar waaw surtout surtout am na ñoo xam ne tey actuellement am na ñoo xam ne bu ñu sañoon tey seen doom nekk banlieue sax affaire bi xam nga lan la gëm sa bopp la gëm sa bopp la ñu boo gëmee sa bopp mën nga egg yow fi nga bëgg a egg surtout <laughs> c'est-à-dire dëgg la sa bopp rek nga xam yow yaay kan xam fi nga bëgg fi nga commencé nga fay egg